bâtiment bi lu muy woné du tabax rek li muy woné moy lan la Sénégal jëmmal lan la Sénégal nam ci diplomatie am euh, bi ñu njëkkee toog ci ay fan yu gatt président def ñoo ne na ngeen dem fofu ngeen néméku ba xam fan lañu tollu ci bâtiment bi bâtiment bi ñu wara xam ni système des Nations Unies lañ ko jagleel manam ñun bu ñu wax dañu naan ONU ONU ak li mu am li mu li mu àndal yëpp ay système am euh, euh, directrice UNICEF a ngi fii euh, directrice FINIAP a ngi fii directrice u PAM a ngi fii ànd ak seen coordonnateur muy monsieur Siaka Koulibaly lépp luy jëm ci Nations Unies rek fii lay ñëw mu nekk nag bâtiment bu mucc ayib defe naa li ñu gis tey vraiment dafa dalal suñu xel président de la République nag yaakaar ni réew mu dal ni Sénégal bu day ni Sénégal ak li mu wootee ci diplomatie ak li mu bëgg fu mu bëgg a àgg ci diplomatie dafa war a am lu mel nii ndax ñoom ñëpp seen service boo demee dakaar ñii ñu ngi fii ñu ñu ngi fii ñu ñu ngi fii ñoom ñëpp dañoo tasaaru ci biir dakaar ñoom ñëpp ñu ànd nekk fii bâtiment bi ay junne junne nit ñoo fi war a nekk di fi liggéey président indi len fi fu ministre am yi nekk parce que fi sphère ministérielle jam ñaajo la président leen nañ fi samp bâtiment bi buñ ko fi sampé ba paré dafa am encore li war ñu mom dafa japp ni ambassadeur yi nga xamni ne yeneen réew yi dañ leen yabal fi ci Sénégal war na leen mëna tabaxal fii ay kër yu rafet rafet pour ñoom ñu mëna nek fi fii loolu yëpp day wane ni mom dafa am gis-gis ci diplomatie Sénégal diplomatie Sénégal diplomatie bu reuy la bëgg nak loolu mo am ay mandarga bâtiment bi ci la bokk cité bii muy bëgg tabax ci la bokk parce que lii même bu fekkee ni am na yeneen réew yi mun naa ne bariwul fii ci Afrique Sénégal mun na nekk benn wala ñaari réew bi ko am te loolu dañ koy rafetlu bu baax te ñoom ñoo ko njëkk a rafetlu